Sophie Milk ñu ngee féete juróom benn ati cafka bu dut dañ ñoo leen indil Jalika full cream milk powder ñeex saf sàpp te bari cafka pour di leen jërëjëfati si ni ngeen defee Sophie Milk seen favorite milk brand léegi mun ngeen a jëfandikoo empty Jalika milk sachets wala carton pour gagner ay xéewal yu riche pour gagner motorbike dajaleel fukk ak juróomi empty carton Jalika milk pour gagner yeneen xéewal yu mel ni PlayStation TV fridge freezer gas cooker bicycle wala mobile phone dajaleel fukk ak juróomi mt Jolly Camel sachets def leen si biir enveloppe binda si sa tur sa téléphone number mën si bépp Jalika Milk agent bu leen gën a jege pour si raful yi dem leen Jalika Milk Facebook page Jalika Milk mooy meew bu ees bu leen so fi indeel gën a neex asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV daal leen si jàmm si kër gi mbokk yi ñu ànd ak ci xibaaru bés bi ngeen ànd ak Omar Tunkara ci bopp xibaar yi mbokk yi dinañ dem ah, seeti ji sàcc mu mag nga xam ne moom moo am fii ci ah, i député maire bi nag kooku daal di tekki am na mal tànka mu am ay gëstu yi nga xam ne nag council bi nee nañ fu mu toll nii nag ñu ngi ko fay def mbokk foreign minister moom kii di Momodou Tangara dalal na nag benn gan gu mag bi bàyyee ko fële ci United Arab Emirates ñuy waxtaan nag li jëm ci wàllu di kaaraange waaye tamit mu am ay bërëb bi nga xam ne daf ko nemmeeku ci réew Gambia ministre of health euh, maanaam jërëm mi dénk wàllu paj mi ci réew Gambie ñoom nag ñoo génnee ay jumtukaay yu bari maanaam ay bagages yu bari daal di euh, a mag ci ko daal di jàpp bi par ko ay daan daan yi métti nga ne nee ne nag mënuñ ko see béyal Euh, fële ca li di réewu Sénégal suñu dëkkandoor yi ñoom nag nee nañ fu mu toll nii seen i lopitaan yi fees nañ fees boo xam ne mën na dañoo amaat sax ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñuy tëddal nag si seen i lal ngir nag coronavirus bi ñettali yoon bu mu delsee ne ne nag daf leen sonal lool comme ni ko seen i jawriñ bi dénk wàllu paj mi nag wérale mbokk yi bii ak yéen yi ak yeneen xibaar euh, daleen si jàmm ñu ànd ak yéen ci faram fàcce mbokk yi dal leen si jàmm su ko defee ministry of health maanaam jërëm bi denk wàllu paj mi ak wéru yaram ci réew Gambia ñoom nag ñu yëkkati bagage yi bari génne ko euh, bokk na ci nag moom mooy ay jumtukaay yu mel ni ay computer ak yeneen jumtukaay nga xam ne yu technologie la daal di koy seddale nag ci réew a xeex euh, li nga xam ne moom mooy jàngoro coronavirus bi nga xam ne nag mu ngi lembi àdduna warngal képp ndaxte nag vaccination bi nag tàmbale na bu yàgg ci réew Gambie waaye nag dañoo génne bagage yi pour nag gën a euh, dooleel seen bopp nag ci xeex bi nga xam ne nag ñu ngi koy def Seydou Camara Gambia Ministry of Health mu di bunt buñ dénk lu aju ci wàllu wérgu yaram gi ci biir réew mi gaarale nañ ay jumtuwaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo pour daal di bind nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël vaccine bi pour muslu ci Covid 19 bi waaye tamit fexe ba gis ne dinañ amale luñ tuppee ci Electronic Civil electronic civil registration system civil registration system bi nag mbir la bi nga xamante ne mu nga aju ci nit ñi lu aju ci seen wàllu bésu juddu bés buñ génnee àddina bés buñ sëyee ak bés bu seen sëy tasee ci biir réew mi loolu nag lañ dee jël daal di ko bind ci benn béréb pour daal di ko am ci biir réew mi te loolu it gis nañ ne bunt bu yore lu aju ci wàllu wér-gu-yaram gi dénk nañ leen ko fii ci biir réew mi waral na nag mu am na ay jumtukaay yi nga xamante ne ni bunt bi yëkkati na ko daal di ko génnee fii ci biir réew mi pour ñu jëfandikoo ko ci wàllu yooya Gambia 1990 Act on Birth, Death, Marriage and Divorces jël nañ ko nag ñu daal di ko àggee Ministry of Health pour ñu fexe ba gis ne lu aju ci wàllu mbir yooyu yëpp dinañ ko dajale fii ci biir réew mi pour ñu xam kenn ku ne bés bu nga séyee bés bu nga génnee àddina ak bés bu sa séy tasee wala bés bu nga juddoo ci biir réew mi ñu gis ne tamit am na lu ñu ci dénk Ministry of Justice ci biir réew mi ndaxte ñoom ñoo yëral lu aju ci wàllu séy yi ak séy yi nga xamante ne ñoo tas ci réew mi naka noonu it ñu jàppane fii ci biir réewu Gambia bu fekkee ne juddu nga sa baat certificate nag kayit la dee nekk ci réew mi loolu waral na am na ñu bëri ñi nga xamante dañ dee am lu toll ci benn ñaar ba ñett sax ci ay baat certificate loolu nag pour takkal ko il faut ñu indi li nga xamante ne nii système la bi nga xamante ne ni électronique lañ ko tuppee mu ñu gën koo xamee ci electronic civic registration bi booba nag gis nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk World Bank bi ñoom ñoo ko dépassé pour dimbale si li nga xamante ne moom moo nekk nguuru réew mi ba waral na nag dinañ jënd li nga xamante ne nii toll na ci téeméer ñeent fukk ci desktop juróom-benn fukk ci laptop juróom-benn fukk ci ay tablettes téeméer ñaar fukk ci ay printers téeméer ñaar fukk ci ay scanners téeméer ñeent fukk ci ay webcams téeméer ñeent fukk ci apps UPS ak téeméer ñeent fukk ci lower line four blocks lii yëpp ay jumtukaay la yi nga xamante dinañ ko jënd ci projet bi li bokk na ci tamit lamination machines bokk na ci juróom fukk ci solar bags ñaar téeméeri offices ñetti téeméer juróom fukk ak juróom ci ay packages ak luñ tuppee ci batterie backup lii yëpp dinañ ko jënd ci projet bi nga xamante ne nii dinañ ci dimbali Ministry of Health mu di bunt bu yore lu aju ci wàllu wérgu yaram gi fii ci biir réew mi pour ñu mun a am xibaar yi fii ci biir réew mi rawatina nag risque rawatina vaccination bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci Covid 19 bi Seydou kamara Star TV News. fële ca olympics bi nekk di am ca réew Japan foofu nag Gambie am nañu leen fa teewal bokk na si nag mooy fay Ndiaye Gambie nag seen fay Ndiaye <clears throat> ci wàllu di di judo wane ne nag moom moo nekka fële ca tundu Afrika moom mooy ñaareel ki gën xariñ ba tax na nag si 73 kilogramme bi ñu ne nag jongante moom moo doon na si diggante ak benn waay ñu ooyee Mahmad Mahmadi Mahmadi Koof wane nag Mahmadi Koof nag duma na ko Mahmadi Koof doomu Tajis Tajisistan la. Euh, te nag wane ne ñàkk na li nga xam ne moom ma di di euh, jongante boobu parce que nag si diir ñetti minutes juróom juróom ak ñetti seconde si la ñàkk li nga xam ne moom moo di di euh, jongante booba si ñaareel li nga xam ne si first round mi nga xam ne nag moom moo am naka ci li di game booba Seydou Camara. Gambia suñu naanaan bi di fay Njie waaye tamit ñu jàppane mooy African number two ci wàllub 73 kg. ci li nga xamante ne moom moo nekk judoka duma nañ ko foofale ca réewu Japan ci Tokyo Olympics yi nga xamante ne tàmbali na ki ko duma nag moom mu ngi wuyoo ci maak max bi kof bu Tijikistan gannaaw bi nga xamante ne jongante nañ lu toll ci ñetti simili yu toftal juróom fukk ak ñetti secondes ci lañ duma ki nga xamante ne moom moo nekk Gambien bi la di Faye Ndiaye jongante bi nag doon na njël benn jonganteem ci Olympic Games yi foofale ca réewu Japan ñu gis ne nag bii moo nekk ñaareeli yoon mu ngi teewal Gambia ci ndaje yu nu mel ndaxte ci atum 2016 tamit ci Olympic Games yu xewoon foofu la ca Rio de Janeiro réewu Brésil foofa it gis nañ ne Faye Ndiaye teewal na fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk réewu Gambia ci wàllu judoka naka noonu it moom fay Ndiaye foofa ca réewu ah, Sénégal tamit am na silver medal bi nga xamante ne amoon na ko foofa gannaaw bi nga xamante ne algérien bi le di ah, Fiti Nourine ah, duma na ko ci jongante boobu ci atum 2021 ci African Judo Championship bi nga xamante ne ni mu nga amoon ci capital bu Sénégal mu di Dakar booba nag moo waral mu daal di qualifier pour bokk ci li nga xamante ne moom moo nekk 2021 Olympic Games yiy xew foofa ci réewu Japan mu di Tokyo moom fay Ndiaye tamit am na silver medal bi nga xamante ne amoon na ko ci atum 2015 ci All African Games yi nga xamante ne mu ngi doon am foofule ca Brazzaville foofu it ndam bi mu fa am moo waraloon mu qualifié bokk ci Olympic Games yi amoon foofale ca Rio Brésil naka noonu it Gambia beneen jongante bi nga xamante ne dinañ ko am ci Olympic Games yi foofa ci réewu Japan moom mooy kii di Ibrahima Sori Boiro Ibrahima Sori Boiro nag di nga jongante ci li nga xamante ne moom lañ tuppee ci men's 50 meter freestyle in hit two for swimmer moom it dina wane li nga xamante ne moom moo nekk man-manam ci wàllu woowu niki ajuma weerub julaay fanweeri fan yi ci atum 2021 bi gannaaw juróomi simili fii ci biir réewu Gambia Seydou kamara Star TV News. mbokk yi si coow bi nga xam ne nag fan yii yëpp mu ngi am ci réew Gambia moom mooy mayor bu KMC Ahmed benn Bensouda moom nag euh, bettu na wane na tamit naxaram si sàcc mi nga xam ne wala boog njuuj njaaj mi nga xam ne nag mu ngi am foofu la lu si e euh, i euh, finance e ngi tudd Seynabou Martin Sonko ñoom ñaar ñoo daal di lekkaloo sàcc lu toll si fukki million ak ñaar mu doon ak ay ay koppar yi nga ko doon lijjante waaye nag gannaaw bu kansul bi buñ ko yégee sa leen si jóg nag dox ay tànk bi ñu jot si ay koppar tuuti te nag wane ne daal fu mu toll nii am na suspension boo xam ne moom moo nekk derrière CEO bi ak ñam ne ne kooku la lekk xalool daal di sàcc lii di xaalis booba may mën a juuf kii di meeyo bu KMC di Ahmed Talib Bensouda moom nag am na njaaxare ak naxar bu bari lool gannaaw bi nga xam ne nag ñii ci ay liggéeykatam ñoo daal di def ab tappale daal di génne ci koppar bu toll ci 12 millions dollars ci bérébu liggéeykaay bi bile ñi ko def nag muy kii di Seynabou Martin Sonko ak directeur bu finance di Aliou Keita ñoom daal ñoo def ñi ni mel mu nekk li nga xam ne nag naxari na kii nga xam ne nag moom mooy meeyo bu KMC gannaaw bi nga xamee nag moom meeyo bu KMC wax na nag nekk na nga xam ne na ko lool tey nag ñëwee na ko kaw mu ne ndax nag lii criminal act la maanaam nekk na li nga xam ne nag criminal yi rek a koy def rawatina nag mu nekk li nga xam ne nag sàcc la tey nag mu nekk sàcc bu rëy sax mayo bi mu ne gannaaw bi nga xam ne nag def nañ ab gis-gis ci seen financial transaction yi njee def mu ne nag si la gaay xam ne lii nga xam ne nag moom mooy koppar bu toll ci 12 millions dalasi daal na génn mu ne nag ñi ko def muy CEO bi moom ak ki nga xam ne nag moom mooy directeur bu finance di Aliou Keita mu ne gannaaw bi nga xamee ne nag ñaari nag ñoo lëkkaloo pour def ab ñaaw ñaaw bi bile yëpp tuddee ko ci tur li nga xam ne nag moom mooy staff welfare association bi ndax bi ñu doon génnee li nga xam ne nag moom mooy koppar bi ñu ko tuddee mooy staff welfare association maanaam xaalis bi daal ci ñi nga xam ne nag la muy dem mooy staff yi le foofu la xaalis bi dem ndekete yow xaalis bi daal demul ci benn staff te staff yi nga xam ne nag ñoom la ñuy jox xaalis bi sax ñooñu sax yëguñ ne ab koppar génn na mu nekk li nga xam ne nag méyo bi naxarlu na ko lool moom Mrs Sonko mi nga xam ne nag jël na ab loon ci tourist staff welfare association bi mu jël ko nag jël wax nañ ne bi mu ko jëlee dafa daal di jënd li nga xam ne nag moom mooy ab pàkk ab pàkk bi nga xam ne nag moom moo ko moomoon boppam mu nekk li nga xam ne moom Ahmed Talib Bensouda naxarlu na ko lool waaye jamono bi nag moom miyu bi mu ne nag def nañ li nga xam ne nag moom mooy freeze maanaam accountam bi daal daal dinañ koy freeze jot nañu jël li nga xam ne nag moom mooy 7.6 million ci ab koppar bi nga xam ne nag jëlee woon nañ ko ci million millions bi jamono bi nag moom meeyo Bensouda mu ne jamono bi dinañ def li nga xam ne nag moom mooy police investigation ci li nga xam ne nag moom mooy ab xaalis bii nii moom benn suuda mu ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waaye local government service commission pour rek ñu daal di dàq ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Mrs Sonko ak directeur bu finance ci li nga xam ne nag moom mooy bérébu liggéeykaay bi ndax nag ñu mel ni ñi waruñ te jiite ab place jamono bi nag fi mu nekk nii dañ leen suspend maanaam ñu ngi toogangum seen i kër ba ñii nga xam ne nag ñoom ñooy police yi daal di def seen liggéey ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy local government service commission Maimouna Diouf Star TV News. Sophie Milk ñu ngee féete juróom benn ati cafka bu dut dañ ñoo leen indil Jalika full cream milk powder ñeex saf sàpp te bari cafka pour di leen jërëjëfati si ni ngeen defee Sophie Milk seen favorite milk brand léegi mun ngeen a jëfandikoo mt Jalika milk sachets wala carton pour gagner ay xéewal yu riche pour gagner motorbike dajaleel fukk ak juróomi mt carton Jalika milk pour gagner yeneen xéewal yu mel ni PlayStation TV fridge freezer gas cooker bicycle wala mobile phone dajaleel fukk ak juróomi mt Jolly Camel sachets def leen si biir enveloppe binda si sa sa téléphone number mën ngeen koo yóbbu si bépp Jolly Camel agent bu leen gën a jege pour xam bi si raful yi dem leen Jolly Camel Facebook page Jalika Milk mooy meew bu ees bu leen sa fi indil gën a neex ok ñu jaajëfal euh, Maimouna Diouf naka si mujjantalu xibaar boobu ci réew mi rek ñu jàll dem sédd ji xibaaru bi ci yi fañ koy tàmbalee mooy ci réew Tanzania Tanzania am na seen benn kuréelu àttekaay boo xam ne nag daal fu mu toll loolu dafay ekkati ab coow parce que kuréel yi nekk bitim réew ak réew yi bitim réew yëpp ñu ngi xopp nga moom mooy président bi ci daanu bi nga xam koy dal ci ko opposition bi nag foofu la Tanzania Chadema chairman Freeman Mbow nee neen daal ci semaine bi la passé woon moom ak fukk ak juróom benn nit juróom ñoom la gars yi jàppandoor euh, ci benn guddi nguur gi nag dañ nekk di dal seen kaw ngir nag ñeen nee nañu ñoom dafa am ay mbir nga xam ne ñu ngi say yëngu yoo xam ne dafa wax xeetoog lii di terrorisme ba tax na state prosecutor Eastern Martin maanaam ki nga xam ne moom moo nekk euh, judge bi Euh, mu ne nag Mbow dafa am nag ñaari ponk yi nga xam nag moom lañ ko daan bokk na si nag mooy ne dafa bëgg a saboter li nga xam ne nag moom mooy seen koom-koom te nag ñaari ponk yi nga xam ne nag daan nañ ko ko dafa wax xeetoo ak terrorisme te loolu bu amee day mel ni mënatuñ koy euh, beelaat nag euh, si seen i réew parti chairman bi nag ak Chadima official si war nañ ne ñu leen arrest Euh, fële ca Lake Victoria Port City bu Mwanza ci li nga xam ne moom moo di alarba bi ndaxte nag wane yi nga am ñu euh, juróom lañ jàppandoor moom ki di opposition leader bi dugg nañ këram néegam ñu daal di koy visité mu am bari nga xam ne moom lañ daal di jëloon foofa euh, ne gis nañ ne daal ki nga xam nag moom ki di président mi nga xam ne nag ko faloon yàggul noonu nag di président Samia Suluhu Hassan yàggul noonu nag la dañ ko daal fal gana Magufuli ni mu doon doxalee réew nag moom kii di daan sax waaye nag am fuñ bitim réew ñi ngay ñaawlu attaque boo xam ne wala boo dal boo xam ne nguur gi nag ñu koy dal ci ko opposition bi mbokk yi Sénégal seen health ministry bi maanaam seen jëriñ bi dénk wàllu paj mi ci bi ñoo gën a si di wane ne l'hôpital yi nekk foofu la ca lii di Dakar fu mu toll nii fees nañ tepp li ko waral nag moom mooy lii di covid 19 bi mooy nag jàngor corona bi ñu ne nag patients yi maanaam ña fee feebar nag ñu ngi fees tepp ci l'hôpital te nag seen docteur yi sax dañoo sonn dañoo liggéey ba tàyyi nag si jamono yi ñu toll Sénégal nag wane daal ñetteeli euh, euh, virus ñetteeli weefi coronavirus bi daf leen sonal ci fan yi ñu nekk parce que nag wane ne fan yi la passé woon daal ay benn benn ci ay cases lañ daa am waaye fan yi la daal euh, daanaka si weeru weeru lii di julaay bi am nañ lu toll si junne ak juróom-ñaari téeméeri lii di cases léegi nag Sénégal seen health authorities yi maanaam seen kilifa nga ñoom ñooy mi nee nañ daal Dakar lu ëpp ñetti million ci ay nit ñoom ñoo fa dëkk waaye nag fu toll nii Euh, kees yi nag bër set lu ñu fay gis daal daanaka jéggi na dayoo ñu ne nag seen lopitaan daanaka fees na te bu dee euh, euh, téeméer ci ay lal moo nekk ci lopitaan Dakar yi foofu la ca lii di daal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp fees nañ tepp jamono yi ñu te nag daf leen xaw a jaaxal nag comme ni ko moom ki di comme ni ko moom ki di Amath moom ki di Ousmane Diallo weralee ci ay kàddum tamit nag wane na ne docteur yi nag dañoo sonn parce que boobu ba léegi nag ñu ngi liggéey te dañoo yi fa nekk hôpital bi yëpp jamono yi dafa am ñi feebar ñi nga xam ne nag ñoom ñoo tëddee foofa Sénégal nag depuis bu jàngoro bi dooree ba tey am na lu ëpp 50 57000 cases maanaam juróom fukk ak juróom-ñaari junne cases ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bi ñu am ne ñoom ñoo ñàkk seen euh, bakkan nag si diggante booba ñu bari nag gëm daal li waral nag jàngoro ji fan yi nag mu daal di ëpp loxo mooy tabaski bii nga xam ne nag ñun si génn parce que dafa amoon ñu bari ñi nga xam ne dañoo tukki demoon seeti ji seen euh, euh, nemmeeku a doole li nga ji mbokk yi euh, Mozambique nag seen président bi di Filipe Nyusi euh, si euh, dimanche bi moom moo wane mbégteem ak kontaanteem si yeneen african countries yi maanaam yeneen réew yi nekk ne dañoo yëkkati seen soldats yi yónni leen foofu la ca lii di réewam ca Mozambique pour nag ñu mun nga xam ne moom mooy seen seen contingent maanaam daal yónnee nañ foofu seen takkadeer yi pour gars yi dem foofu la ca li nga xam ne nag moom moo ne Euh, sant na gërëm tamit Rwanda parce que Rwanda it seen soldats yi ñu ngi waaj pour dem foofu ci fan yi ñu toll pour dem jàppale moom moo am seen réew Rwandan forces yi nag wane ne ñu ngi seen biir réew te loolu yëpp dafa bokk ci nangutoo bi nga xam ne moom lañ Rwanda nag wane ne euh, dañoo ñëw pour wane solidarité seen i euh, ci jafe-jafe yi nga xam ne nag koy daj na comme ni ko ñu euh, si nag waralee mu ne loolu nag amuñ si seen fay parce que dañoo ñëw pour sàmm euh, bakkanu doomu adama yi kon nag dañoo ñëw pour tamit mooy tandiku pour euh, fitna bi na bu mu law dem ci yeneen di di réew yi ñu ngi tamit dem xeex pour ñàkka yàq li nga xam ne nag moom moo di alalu askan bi yàq li nga xam ne nag moom moo di di alalu a jóg mooy seen soldat kon loolu ñoom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax military intervention bi nee nañ Euh, nekkul Rwanda rek ñoom ñoo ko daal def parce que Rwanda annoncé nañ lu toll si junne si seen soldats yi dañuy dem foofu la Mozambique waaye am na yeneen ne pare nañ pour dem jàppale li nga xam ne moom mooy réew Mozambique si fitta bi nga xam ne nag fan yi gis nañ daal mu ngi jóg nag seen réew ba tax na nag Filipe mi nga xam ne moom mooy seen président wane na si nag mbégte ak kontaan si soldat bi nga xam ne nag réew yi ñu ngi koy ñu toll mbokk yi mu nekkoon suñu mujjantali xibaar man Omar Tunkara ma nekkoon àggee eh, Mbaye Mbuub moo nekk ci caméra bi eh, Basirou Salla Aliou Tunkara ak eh, Jacob Samba ñoo nekk ci machine bi ki nga xam ne nag kooku mooy poste bi mu ak Daara Thiaw ñoo teewal xibaar yi jërë ngeen jëf wasalaam